réew mi nag jàmm fi xaj mënuñoo am lu dul jàmm te suñ mag ñu baax ñi nga xam ni tey ñoo ŋànk diini ji ba diini ji ak si fii seen warugar def nañ ko jóge fi bàyyi ñu fi ndono ndono loolu nañ ko sàmm ba dara du ko yàq ñu xam ni ñoo jaboote nit ñi kenn ku ci ne responsabilité bo wara jël nang ko jël te yalla tax parce que kilifa ak diiné wala njit mo xam président de la république nga mo xam ab khalifa nga mo xam lo meuna a doon ba ci borom kër gi ne ci këram fiñ koy xamé nawé ko fa moy bu responsabilité euh may ñaan président de la république mu xolaat entourage parce que man na japp na ni entourage am am na lu ñu koy wax loo xam ne lañ koy wax demewul noonu entourage am yàqal nañ ko digganteem ak nit ñu baree bari soo su nit waxee ñu ne ko diw sàngam dalaa bañ diw sàngam dalaa contre nit ki nan ngay mën a participer ci li ko teg ci réew mi façon bu ne nga xeex ko fi ci jamonoy Abdoulaye wat ma ànd ak Ousmane Tanor Dieng ñoom ñëpp ba ci Moustapha Niass mi nekk président assemblée nationale. am na kuréel goo xam ne bi ñu koy bi ñu ña ko formé Moustapha Niass moo ne leen bu ngeen bëggee ñëpp daje dangeen koy jox Sëriñ Abdou Mbacke mën naa ko coordonné ñëpp te boobu dañoo jàppoon ni su su mbir ma taxawee réew mi dana ci gis boppam looloo ñu ci dugaloon ñun war wutuñu palug àdduna amul benn poste boo xam ni postu àdduna la boo xam ni dañ koy joxe boo xam ne man bëgg naa ko amut lii ma Sëriñ Touba sedd bëgguma ko weesu ñaanuma yàlla weesu ko te duma ko weesu kon ay palak ay alal ak suuf ak dara lu mu ci intéressé wala loo xam ne moo ma tax di jóg wala moo ma tax di wax amut man li ma bëgg rek réew mu tege ci yoon ku yor réew mi doxal doxal yoon yërëm nit ñi dimbali leen ba kenn ku ne li nga xam ne mënoo ko ñàkk ci àdduna te mooy dund nekk ci jàmm yar sa njaboot jaamu yàlla ak foo mën a nekk moo xam jullit bi nga moo xam chrétien bi nga loo mën a doon rek nga nga nga nga nga nekk ci loolu jàmm jooju lañuy ñuy woote ci Sénégal euh, kilifa itam nañ xoolaat bu baax seeni entourage parce que am na ñoo xam ne dara waru leen ump ci réew ñoo ngi profité di nuyu monse monseigneur Benjamin Ndiaye euh, damaa amul jot waaye su ma amoon jot fan yi danaa dem seeti ko waaye nag ñoo ngi koy ndokkeel di ko xamal ni lii may wax nii cër bi ci sëñ Muntaxa am Euh, Thierno Mouhamadul si am ko sëñ si man soo am ko ci yeneen këri diine yi ci Sénégal yëpp am ko ci noonu la ci moom monseigneur Benjamin Ndiaye amee amee amee rôle boobu ndax kilifa leen nekk ci réew mi yilif mbooloo te macha allah mbooloo mi tam euh, ci yar lañ leen xam liggéey kalmu jàpp seen njàmm man de wax dëgg yàlla jàngu bi loolu laa xam ci ñoom xaw ma ci ñoom leneen kon na jàpp ni moom it rôle bi nga xam ni sëñ Mountakha am na ko ci réew mi ci ñim jiite. yeneen kër yi am ko ci ñi ñeneen ñi ñu jiite benn eh, Benjamin Ndiaye noonu la ko amee ci ñi mu jiite nañ jóg taxaw ci suñu réew mii seet li nga xam ne moo ñu mën a jëmale kanam ñu nekk ci te bàyyi détails yi ah, man nag eh, eh, sama gis-gis bari na lu xew loo xam ni ñi ko war a yëg yëguñu ko boo gisee man ni kilifa yi diine yi nañ seetaat seen entourage. tey suma don doon joxe exemple dama naan tey sëñ Muntaxa ni président de la république di jote lu xew ci réew mi ngoon gu jot man japp naa ne sëñ Muntaxa mi ma mi nga xamni moma yilif yilif fa ma nek muy daru murit japp naa ne yoonu murit tey kër gu fi ne waxuma la daru murit Kufi ku fi ak fo way ne lu fa xew bala ngona warna jot warna naa dugg nopp suñ muntaxaan warna ñoo dem ni ko li xew na daru salam li da xew na daru li xew na keur maam Cheikh dafa li xew na fenen xew na fenen xew na fenen dara bañ ko umb japp na ne bu fekke kilifa da jaboote lo xamni dayo bi sun borom subhanahu wa taala rek moko xam japp na ku ko bëgg dimbali ku ne la nga xamni ni la ne suñ jubé na xam suñ dëggee na xam lu fa xew na xam jàpp naa nag kilifa yu bari ci Sénégal amuñu information ñi leen war a wax information yi xew bañ xam ko man caa def lañ ca war a def information yi du àgg ci ñoom ba tax na bari na kilifa gu ñuy sikk goo xam nii ña ko wër nekk ci ñoom ñoo leen yóbbe lool kon nag maa ngi xamal président Macky Sall xamal président Ousmane Sonko xamal Sénégal yëpp ne Sénégal Sénégal yooyu ko moom nañ teg réew mi ci dëgg ku jàdd nañ la jaarale yoon waaye ku nekkul ci dëgg te na la ñëpp wax ni nekkoo ci dëgg réew mi Sénégal yi ñoo ko moom ñoo ngi ñaan jàmm ci réew mi eh, di ñaan ñi nga xam ne ay responsabilité lañ yor ci réew mi te jiite mbooloo nañ seetaat seen taxawaay bu baax a baax ndax ku fi nekk xalif li fekk faatuwoo kenn mënu ko dindi nit nag mën naa nekk président ci ak dundam di dund ba tey te dootu nekk président Abdou Diouf a ngi fi Abdoulaye Wade a ngi fi man de Macky Sall diggante deux mille mille 2009 2010 2011 taxaw bu ne taxaw naa ko ci wetam ànd ko Ousmane Tanor Dieng pour mu jot ci réew mi parce que dañoo jàppoon su jotee ci réew mi li Sénégalais yi bëgg dana ci jaar ba lañu la metti woon ci changer changer résime buñ ko buñ buñ ci jotee fi Sénégalais yi bëgg ak li ñu yaakaaroon ci moom ñu am ko ci. loyal itam weesuwut na gëna xolaat entourage am te gëna a gëstuwaat te xamni amna lu xew lo xamni xamuko ma ngi sant ñep di gërëm ñep di ñaan jamm ci réew mi kenn ku ne tam li la war nang ko def lu la wara bu ci jëma réew mi nak légui ñepp ragal tax bi bari na lu neex way wax kenn rusatul kenn fo wax ñu am fuñu dekkale waye nak mën na daj am na ñoo xam ne àdduna du yàgg yàgg ba ñu nekk ci lu ñu war la nekk ñaanu ñu ko yàlla am na ñoo xam ne àdduna du yàgg yàgg ba nekk ci li ñu war a nekk lu ñu war la nekk ci la ne waaye nag sutura lu am solo la ci ci ab jullit maa ngi koy wax tey ku ma doon waxtaan ma ne ko xam naa genn kilifa gu mag ci réew mi goo xam ne dafa masa nekk ci otom ànd ak ku soxnaam def soog daje keneen. da wacc tok fi suuf ni ma ndax ki ma andal du sama soxna to su suy musibaam koko jegal ko ñu dem ñu dem boba léegi mën na juróomet ken musuko deg ko kan kam jalon defalon nako sutura te su su su ko su fekkoon ni ca jamono yoy da ko waxon lolu continue ba nëgëni kon ba legi ci lolu dana ko raw te ba legi ken xamuko kon sutura lu am solo ci doomu adam man nak néew mu Ousmane Sonko def néew mu defut waye nak lu lu mën xew rek nañ ko def li wàcc lay taxalaam lepp leer nañ nañ nañ nañ ben par par lo bañam bañ ci am ñu teg ko ci yoon rek eh, sama xarit nak president Moustapha Niass nga xam ma maa ngi moom seqoon nañ lu bare bare ci jamono yi fi yi ñu bëggee di joggé fi eh, ma ngi koy wax ni ko man na taawloo president Macky Sall donte kilifa am nak di sun kilifa ñun président Moustapha Niass mën nako tawlo limay ñaan président Moustapha Niass teraanga ju nit am ci aduna yalla jox nako bam am ad yi mu am nga xamni tay tey Sénégal su demon kër Tafa teud fa defatul dara réew mi su amé problème war nañ ko fekk kër kër Tafa waxtaan ci mom pour mu jog ci taxaw ci ma ng koy ñaan na waat ab taxawaayam ci réew mi te moytu yu bare bare noonu laa koy ñaanal nag ñi nga xam ne ay mag lañ te ñii ci réew mi yëpp ñu defaraat seen toogaay defaraat seen taxawaay jàppale réew mi ak fuñ mën a ne euh, président Macky Sall itam mu xam ni réew mii am na ñoo xam ni moo leen yëf te ñoo ko gën fuuf ci ci jaamu yàlla ne ci lañ war a ne te tey yàlla dogal na moo leen yilif ku moo nga wujju man jàpp naa ni moom ñëpp a war a sant yàlla waaye kenn waru ko cee jiitu ndax bi mu daataa nekk président de la république ndomb gu ne takk na ko ci ci ci réew mi tey bu dëkkul woon président de la république turam dootu fay ci histoire Sénégal te yàlla jaareel na ko foo xam ne am na ñoo xam ne dàqu leen a jàng amul lenn lu mu leen ëppale te loolu lépp suñu borom dimbali ne ko ci ba mu jaar ci ba mu mujjee président de la république nga xam ne mënatu koo weesu ñëpp war a sant yàlla waaye na moo ci raw maa ngi koy ñaan. mu xam ni yàlla wàccoo naa moom na dimbali réew mi na yërëm nit ñi na xam ni amul APR amul ku ànd ak Sonko amul ku ne PS amul ku ne PDS ku fi nekk ku ne moo la jaboote kon loolu laa bëggoon a wax di ko wax te yàlla tax di ko dénk senegal yëpp di ko dénk kilifa yi diine di ko dénk ñii politique nañ delloo si seen xel te liggéey réew mi feebar bii nekk ci réew mi doy na sëkk. te man dama setlu ni senegal legi dara xewatu fi lu politique kenn talatul jaamu yalla kenn talatul lu liggey nit ñi nit ñi nga xam seen yoon néew ci politique sax duggal nañ leen ci lool nak maa ngi ñaan mu dakk te kilifi di nañ ci jóg nañ ci jóg parce que réew mi ngi ñee ko defar ba mu agsi fii ci ku ñu wax sëriñ mbacke Njaay mu ne fi nekk ñëpp di coow tey doo wër réew mi ba gis ci benn dëkk boo xam ne dañ naan ñi fi coow nii ci politique bi seen maam a sañ ci dëkk bi kon ñi nga xam ne seen maam ñoo sañ ci dëkk bi gortool yi yilif mbooloo mi àggali fii diine ji ba ñëpp am ci ñoom confiance ba dénk leen suñ seen bopp nañ xam ni am nañu responsabilité bu rëy ci kanamu kañ bàyyee seen ka leen bàyyee njaboot gi ak ëllëg ca kanamu suñ boroom maa ngi encore di ñaanal sëriñ Mountakha mu yàgg fi dem naa fa. waxtaan na ma moom déglu na ma la ma waxtaan moom nag du ma ko du ma ko wax saa yu xanaa saa yu jotee saa yu jotee nag danaa ko wax waaye daal la ma ko bëggoon a wax wax naa ko dégg na ab noppam nee na man naa toog déglu maa ngi toog di ko déglu di siyaar waa Sénégal gépp beneen bi ci des itam may nuyu sama mbokki waa diaspora bi